صلاة وتسليم مع البسر سرمدا على من بي مكسي مع الأمن والبشر muy sant suñu borom bu baax te lépp lu mu def ci barab bi rek ñaanu sëñ Muntaxa mi sëñ Tuuba muy donc ñaanu sëñ Tuuba ñaanu njabootu sëñ Sidi Maxtaar bi lu ci leneen beneen li ñu dénk mooy dafa bëgg ñu gërëmal ko sëñ Cheikh Ndiaye bi toog fii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 ومولانا محمد المكين وعلى آله وذهبه ذوي الرضوان والتمكين mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam. ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci kaw ndigal lu bàyyi ko ci sunu kilifa di Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbacké mi fi nekkal cheikh Mouhamadul Amin ak cheikh Sidy Mokhtar jataay bi ñaari mbir rek moo ko waral bi ci jëkk mooy liggéey bu ñu tàmbali woon mois bi ñu yoroon liggéey bi ànd ak seen xol yu sedd ak caabi yi di guddi ko jébbal sëriñ bi leen ko doon liggéeyoo bu ñaareel bi mooy cant bu bàyyi ko ci sëriñ bi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 def leen ko ab yóbbal ku julleeti ci jàkk ji te man ko na jàng faatiha bu sell ak fukki lexlaas ak benn addiyaale ko Cheikh Sidil Muxtaar barab baa ngi barab baa ngi nii jàkka jaa ngi nii wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu amul leen lees xanaa fu waay toll te ñaan dégg ndigal li te jëfe wax leen amin alhamdulillah di des yàlla am àgg di des yàlla am wax leen am ci la waay daay doy na. wa fi kulli sahrin zayd rubhi wa fi safar. رباعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر